Ah, Aïcha Aw présidente réseau réseau pour le développement de Thiès. alors ay suñu bëgg nga ñëwaat tey ci xew-xew bi fi amoon fii ci Mbambara euh, muy face euh, émission face au Thiès waa euh, di amaat contentement rek foog naa face au Thiès bi ñu ñëw Mbambara tey mooy troisième édition bi di ci kontaan di ci am ben yëg-yëg boo xamante ni bi xëy na boobu ba léegi amuñu ko ci yëg-yëg bi ñu am tey mooy ñun dañu ne ñu ngi atteindre sunu objectif parce que nga ñëw ci benn gox euh, plus de nga fekk plus de groupement yu ëpp na dix groupement ñu ne la ñoom dañoo bëgg a ñëw bokk ci cadre bi donc ñun dañ ne atteindre nañ sunu objectif parce que groupement yooyu ñu ngi dëkk dëkkuñu ci benn gox dañoo dëkk ci cinquante-huit euh, quartiers yu nekk Thiès. alors euh, li ni mel rek développement moo ko lal. Euh, tey ay si yaa ngi wax atteindre ngeen seen objectif tey euh, bu ñuy liste tey jafe-jafe yi nga xam ne waa Bambara jigéenu Bambara wax nañ ko ci lay dal. waa ñoom seen jafe-jafe yi ñu fi wax wax nañ surtout ci éducation wax nañ tamit ci sante yàlla def na ñaari ñu wax yëpp sunu coordinateur dafa am foo xam ne da ciy da ciy cof di ko laal. Euh, benn bi moom dañuy wax ci santé suñu coordinateur moom day yëgam ci santé bu baax a baax ñoom nee nañ dañuy am problème mu faju moom nag jël na fii engagement ne jël na leen en charge dina leen may euh, cinquante carnet yoo xamante ne bii dina wër dina ëmb 50 euh, famille kon boobu dañuy wax ne vraiment ñu ngi ko ciy remercier waa trop monsieur Habib kan ñoom ñu waxaat tamit ne étudiants yi nekk fii maanaam élèves yi nekk fii di jàng dañoo am problème mu cours de renforcement parce que

Euh, mais tey bu ñuy xool au delà de li ngeen di def ci wàllu développement gis nañ ne forte mobilisation bi nga xamante ne carte membre def nañ ko. Mhm. wuy si cadre bi est-ce que cadre bi tey pare na ku ñëw mu kii la est-ce que outil yooyu yemb na. waaw xam nga ñun sunu sunu sunu liggéey nekkul ci loo xam ne dafa toog benn place ñun dañuy génn sunu doole sunu coordinateur génn dooleem ñu boole ku ñëw ci nga bokk parce que ñun dañoo ne développement. comme que développement la nag yàlla def na loo xam ne amuñu nit ku nga xamante ne bii à chaque fois lu ñu soxla dañuy dem ci moom ñu joxe déedéet ah dañuy dem chaque fin du mois li ñu am kenn ku nekk li nga am nga boole nga indi dañoo bëgg taxawal benn cellule tey dañoo bëgg a taxawal benn groupement wala dañoo bëgg forme benn groupement ñu dem ne coordinateur dajale nañu 300000 wala dajale nañu 500000 euh, euh, formation bi 1 million la moom mu yëkkati 500000 mu jàppale ñu. te cotisation yooyu à chaque fois ñun ñu ngi koy def ay cotisation mensuelle la à chaque fois ñu ngi koy def te dañoo am coordinateur bu nga xamante ni bii macha allah. Euh, à chaque fois ñu posé ko problème euh, formation wala problème mu montage cellule wala fu ñu bëgg dem moom da ciy participer bu baax a baax a baax. alors mu mel ni cadre bi tey amoon na invité yu spécial. à mhm. l'image de Abdoul Aziz Diop Forum Civil. Mhm. tey ban yëg ngeen am ci kilifa yi ni mel di ko teewee. waaw tey dañoo am yëg-yëg ñaari yëg-yëg dañoo am yëg-yëg surtout ci diine parce que daf ñoo teg ci yoonu diine d'abord. moom xamal ñu loo xamante ni bi itam ñun xamuñu ko woon parce que tey boo ko gisee mu ngi doon waxtaan ci wàllu ger ah te ger ñun dañ doon wax ñun bonne solution la ñuy def pour dindi ger ñun xamuñu woon sax ñun ñun suñu bopp ñu ngi ñu ngi geraate wala ñu ngi ñuy ger te yëguñu ko donc moom xamal nañu euh, charte ger yëpp li koy indi ak li koy dindi ah ba fi mu na nii xam nañ ne comme cadre bi loolu mooy liggéeyam Ah, euh, su la dugalee fenn waxtaan ak yow indi conférencier boo xamante ne bii day waxtaan ak ci yow loo xam ne euh, la nga nekkoon wala bu dee baaxul da nga cay jóge bu fekkee ne yaa nga ca woon mu baax danga koy yokk. alors que la moo doon dénkaane waa di dénkaat comme sama moroomu jigéen ñi rek a chaque fois dama leen koy wax ñu moytu di taaral jataay yi taaral yoo xam ne du amul benn benn sens taaral jataay boo xamante ni bii di da ngay taaral jataay toog comme ñoom foog naa léegi suñu invité bi wax na ko su ngeen soxlaa dara ñu woo leen fay leen 3000 ou bien 1000 francs ngeen dem def loolu après ngeen delluwaat fu ngeen nekkoon ñuy man maa ngi lancé appel ñi euh, jigéenu Thiès yëpp nañ ñëw bokk ci cadre bi dinañ leen former dinañ leen jàppale ci lu leen lu ñuy seen ay groupement lu ñuy yëngatoo yëngale seen ay loxo te it loolu ñu leen di former buñ ci continuer dinan am ay revenu mensuel incha allah. maa ngi tudd Soxna Bintu Mbaye di relais ci ay fan nekk présidente cellule réseau kaaraange xale yi. alors euh, tey euh, am ngeen ngeen ay gan yu mag muy cadre bi ñëw ci émission Face au Thiessois tey lan nga gis ci ay jàngale ak lan nga gis ni tey su ngeen ci togoo di ngeen ci gën a bopp. vraiment tey moom dañu kontaan ñun waa Mbambara gépp parce que amuñu lu dul Mbambara te képp ku ñëw di ñu jàppale pour Mbambara dañ ciy sant yàlla bu baax. parce que ñun suñu koñ rek lañu am te bëgguñu lu dul suñuy jigéen futeeku simeeku ñu jàppante liggéey taaral suñu koñ bi ndax ñun ñoo ko moom vraiment loolu rek la ñu xam gis naa tamit yokkute yi parce que ñun liggéey lañu xam te képp kuy liggéey ku nekk ku la dimbali rek nga xam te ñii fi ñëw tey ji autorités yi fi ñëw tey jàppale ñu rek moo leen tax a jug amuñ ñu dul jigéen ñi rek la ñu bëgg jàppale leen ba ñu yegg fa ñu bëgg a yegg te incha allah ñaan nañu yàlla yàlla jàppale ñu ñu egg fa ñu bëgg a egg bu soobee yàlla. alors ngeen di ay agent de développement te bu ñu xoolee gis ni cadre bi am na ay jafe-jafe yoo xam ne jigéen yëkkat ñu ko ci wàllu góor gu yaram mais également ci wàllu njàng mi tey en tant que actrice ci secteur yi ni mel lan ngeen di xaar ci vraiment loolu tamit lu am solo la. parce que man mii di wax nii dama yor mutuelle de santé kaaraange xale yi bu wàcc ay fën yi donc wér-gu-yaram moom ñun amuñu payam te vraiment Habib li mu def ñun gis nañu rafetaay gi mu rafet ndax lan amuñu lu dul suñu wér-gu-yaram kuy liggéey nag ku nekk wér moom mooy sa kiiraay mooy sa càngaay ndaxte ñun amuñu lu dul loolu vraiment cadre éducation tamit kontaan nañu ci parce que amuñu lu suñu njaboot te xale yi ñoom ñooy avenir suba ku leen jàppale ñun nga jàppale ñun jigéen loolu daal vraiment moom kontaan naa ci trop. kon daal mën nañu jàpp ne jigéen ñi euh, wuyu si nañ ci vision wu. Euh, wallaay kontaan nañu trop trop trop te ñoom ñëpp bu soobee yàlla ñu ci bokk ak ñu ci bokkul ñëpp bu soobee yàlla nañ sensibiliser ba mu gën a neex ba ñëpp xam ni ñun ñoo aaye.